comité d'organisation di grand magal du Touba di kuréel gi nga xam ne nii ñoo jiite lépp lu jëm ci liggéey bi jëm ci waajtaayu magal gi tey jot nañu ay jumtukaay yu bàyyeekoo ci société bii di Ecotra ci njiitu El Hadj Abdoulaye Sylla di doomu dëkk bi juntukaay yooyu nag day daal di tàbbi ci waajtaayu màggal gi nga xam ne nii jàpp nañ ko naka juróom-ñetti fan ci weeru novembre 2017 liggéey bi nga xam ne ni moom la ñuy ubbee màggal gi muy mbale mi tax na tey jii Abdoulaye Sylla ànd ak société bi nga xam ne nii moo di Ecotra indi matériel yi juntukaay yi nag ni ngeen ko gisee toll na ci lu ëpp juróom fukki camion ay peel ay bulldozer ak mbooleem juntukaay yoo xamante ni rek dina mën a yewenal mbale mi ànd ak personnel boo xam ne nii ñoom itam ñooy ànd ci liggéey bi moo xam muy chauffeur yi wala ñi nga xam ne ni ñooy techniciens yi pour accompagner ñi nga xam ne ni ñooy bale dëkk bi ñu war fee nekk nag diirub mbale mi ba ginnaaw mbale mi bu màggal gi jub si jëf ji day daal di dalal xelu ñi nga xam ne ni ñoo jiite mbale mi rawatina ren ji nga xam ne ni nag dëkk bu tedd bii mbale mi dafa dajalanteeg ak yëkkati gi nga xam ne nii doon nañ ko yëkkati yenn ci place yi nga xam ne nii dañoo nekkan ci yoon wi loolu nag sabab mbalit mu bëri ci biir dëkk bu tedd bi di Touba yan jumtukaay lañ ko war a tonnee doonoon njàqare waaye mel na ni ak matériel bi nga xam ne nii ñëw na saafara na ko lii nag nekk loo xamante ni bégloo na lool ñi nga xam ne ñoo jiite comité d'organisation màggal gi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppu mbaleem Touba.